wasalaatu wasalaamu ala saaxibi alxaqi rabbaaniya sayduna muhammadin wa ala alihi wa xulafaihi tayibiina tahirin wa ridallahi alxaalit an jamii almuminin mbokk yi ginnaaw bi ñu sante buur bi subhaanahu wa taala julli ci sang bi mu sallallahu alayhi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu bi muy yowmul jumha al mubaarak di ñaan borom bi subhaanahu lépp lu ñu jaamu ci bis bi ñaan ko ci yal na yàlla nangul ñu ko ci barke bu tedd bi mbokki jullit yi nanu xam ni bokk na li tax yàlla subhaanahu wa taala farataal ci nun koor mooy koor dafay tàggat bakken koor dafay not bakken waaye dafa koy ngalaab ba bakken bi du màmmu ndax bakken saa yu reggee rekk dafay bajantu ndax lu suur bajantu kon bokk na ci li nga xam ni moom moo koy not mooy koor gi ndax ku xamul suur naa dañuy téye sa loxo te bakken nag xamul suur naa waaye bokk na ci li nga xam ni mooy yëlëb loxoom mooy koor gi ndax buñu ñu seetloo ni dañuy gis ni doomu aadama bu ci nekk dafa aada woo di jël di jël ay pala ci bëccëg bi bu xëyee dana ndekki dana añ kon su fekkente ni koor gi dafa ñëw mu changé pala yooyu nga xam ni daf ko daan jël ci bëccëg gi wéyal ndigalul yàlla subhaanahu wa taala bàyyi ay tereem kon gañe na bakken bi moo tax bakken koor gi bu ñëwee daf koy nott daf koy téye ba bakken bi du tarxiis du màmm jëm ci loo xamante ni neexul borom bi subhaanahu wa taala kon koor jaamu yàlla gu mag la jaamu yàlla la goo xam ni dafay jeexital ci sunuy ruux waaye dafay jeextal ci sunuy jikko kon ñu jox leen naafila tey di àjjuma ñu ni sopp nañu ku julli juróom benn ràkka di ñetti sëlmal ñu ni ràkk bu ci nekk da ngay jàng faatiha jàng qul huwallahu ahad juróom ñaari yoon mu ni soo ko jullee ju'ilat tilka salaa sawaabal janna yoolub julli gi akuk payam mooy ëllëg yàlla dugal la aljana yàlla na yàlla defal ñu ko wa amanahu laahu min kulli maa yaxaaf yàlla daf lay musal aar la ci lépp loo xamante ni ragal nga ko wala yasalu laahu xaajatan illaa wa ataahu laahu aajo boo am boo ko diisee suñu boroom yàlla dana la ko fajal ndax moo wax ne ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen wa yaxrubu minhu seytaan soo ko jullee seytaane daf lay daw ndax seytaane mooy noon bi gën a màgg mooy noonu doomu aadama bi nga xam ni saa yu xëyee rekk mu ngi koy ñaalal ay ndëgg sërëx bugg ko yàqal boo ko jullee nag seytaane daf lay daw mu ni wa yamuutu alal imaan bis booy faatu ngëm yàlla mom ngay yobale yal na yàlla defal ñuko ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh CICP compagnie industrielle bu PVC mo ande ak yéen ci wéeru koor gi yépp ci guddi fi lay di len ñaanal kooru jamm.